ministre fa mbaxana doone benn maanaam ca haute cour de justice journal bi nee na ministre yi nga xam ne ñoom la député yi tudd ngir nag ñu yóbbu leen ca haute cour de justice ñii la Mansour na dem ca haute cour de justice Abdoulaye Diouf Sarr nañu ko yóbbu ca haute cour de justice Abdoulaye Daouda Diallo nañu ca haute cour de justice Moustapha Diop nañu fa yóbbu Ablaye Diop nañu ko fa fa yóbbu Zahra Iyane Thiam nañu ko ca yóbbu ca haute de justice Assome Diatta député yi wax na nañu leen yóbbu fa mbaxana doone benn journal bi nee na mooy rapportu covid 19 bi maanaam ci xaalisu covid 19 bi nga xam ne cour des comptes moo fësal boobale rapport ba léegi mbir mi demagul ci nga dikkagul mbay laar yéen i kaay gi di bés bi nee na lu jëm ci xaalis bi nga xam ne moom lañ jegle loon coronavirus bi ak ni nga xam ne moom lañ ko doxalee coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag dañoo joxar bi baaraama tuuma Macky sal lu jëm ci wàllum haute trahison yéen i gi nag ñu xëy fekk fa Aïda Mbodj nee na nii nga xam ne moom lañ doxalee xaalisu covid 19 bi loolee crime dëggantaan la Aïda Mbodj ci biir journal bi nee na am na ñaari mbir yoo xam ne Macky Sall bu ko laalee dëkk bi mën naa yëngoo bi ci njëkk mooy Macky Sall bu taxawee ne candidat la Sénégal mën naa yëngu waaye tamit Macky Sall bu taxawee ne Ousmane Sonko du bokk ci élection présidentielle 2024 dëkk bi mën naa yëngoo yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu atte bi war a dox diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko tey ji la ci lu jëm ci mbiri 29 milliards yu Prodac yi journal bi du L'Observateur daan nay wax ne atte bi nga xam ne moo war a dox diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang mbir mu nar a nekk dangereux la ci Ousmane Sonko ndax nag am na condamnation boo xam ne bu ñu ko defee Ousmane Sonko bañ a bokk ci présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal en tout cas Ousmane Sonko amul kenn koo xam ne dina ko ca tere bokk nee na tamit bu bëggee jàmm dina ko am bu bëggee safaan wa tamit dina ko am andi na ay leeral nee na amul benn contact boo xam ne am na ko ak ay puissance étrangère nee du saraxe boppam moom Ousmane Sonko nee na li am ba desal askan wi jamono ji xale yi ñoo ngi wàcc kër par kër quartier par jàppale ba pare jamono ji woote nañu sax li nga xam ne mooy ab résistance ndax nee nañu du ñu d'accord benn yoon du ñu ci ànd ñuy jël Ousmane Sonko di ko saraxe di ko yóbbu ca chambre criminelle d'accord ñu ci ndax ñoom Déthié Fall nee nañu Macky Sall li fi desoon na ku su ci lu jëm ci wàllum démocratie Macky Sall saax na ko waaye nag na ko leer na moom Macky Sall du nekk candidat ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Abdoul Mbaw ci biir journal bi de L'As nee na force restera à la loi maanaam bëgg a a kaay gi di enquête Pape Mawu Diouf bu bokk yaakaar ñoom waa Benno Bokk Yaakaar jamono ji taxaw nañu ngir faire face ak képp koo xam ne bëgg nga andi ak pëccëxoo ci réew mi yéen a kaay gi délesé ko Ousmane Sonko wax na ak ñi nga xam ne ñooy xale yi nee na leen bu leen déglu ñi nga xam ne ñoo leen di wax bu leen résister képp koo xam ne ma ngi wax bu leen résister kooke bëggul réew mi yéen a kaay gi di Le Quotidien Sonko nee amul benn yoon boo xam ne daan nay contre ñi nga xam ne ñooy étranger yi waaye nag lu am lu ci man di am intérêt Sénégal lay maanaam gagnant gagnant yéen a kaay gi di Walf Fadjri nee na kër Ousmane Sonko ca cité kër góor gi jamono ji takk ko daal di wër heure sam nañu ko yéenekaay gi nag nee na ñi nga xam ne ñooy jege ñaali Ousmane Sonko yi ay farandooma ñoom pare nañu ngir nag défendre Ousmane Sonko ngir défendre li nga xam ne mooy projet bi yéenekaay gi de la Tribune nee na diggante Idrissa Seck ak Macky Sall ndax jëmul ci jeex journal bi nee na bu génnee ca biti bu mu leen bett yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu niki démb ca diwaanu Yaraax tàngoon na jër ndax ndaw ñi ñoo fa doon jàppante ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi ndax dafa am benn promoteur boo xam ne mooy ñëw ba ca taatu géej ga maanaam ba ca géej ga mu daal di fay bëgg tabax li nga xam ne mooy ab gare xadima loole la xali lànk ba tëdd sa naaj démb taal nañu ay pëna jàkkaarloo ak takk der yi mën a la démb yarax tàngoon na jër yéen kaay gi di 24 heures nee na Samba Kam yi nga xam ne moo nekkoon ci tiktok bi te ñu jam ko baraamu tuuma ci lu jëm ci wàllum sàcc maanaam mooy ki ñu filmé woon muy sàcc moom Samba Kam moome tëj nañ ko lu toll si ñaari ati kaso yéen kaay gi di la Tribune réew mi quotidien di sunu làmb ñu xëy fekk benn yoon ki nga xam ne mooy Lac de Guiers numéro 2 te nag combat bi léegi tey mu